aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi <clears throat> ginnaaw bu nu sante sunu borom subhaanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam feddliwaat sunu yaakaar cheikhuna ahmadul xadim ñaanal sëriñ Tuubaa cheikh mahamadul muntaxa yàlla na ko fi sunu borom gën a yàggal te gën a dolli ak wéram kàttanal ko ba mboolem naal yi mu naalal lislaam yëpp mu àggale ko te nu ànd ko ak moom bokk tey ñu ngi toog ak kenn ci comité d'organisation bu màggalu Touba mu di sëriñ Mouhamadou Mbacké moom Cheikh Abdoul Wadoud ñu fas yéene seq ab ay laaj ak ay tontu mu jëm ci waajtaayu màggal gi nga xam ne moom la ñu dëgmal te ku ne xam ne ne màggal gi ren ji màggaluk nawet la waaye comité d'organisation bi it am na ay kumpa yu bari yu dox seen digganteeg doomu aadama yi mu mel ne ñoom li ñu nekk day fardu kifaaya ci mbooloo mi ndax lu waroon ñëpp la benn kuréel jóg féete ci mbooloo mi yëpp kon day mel ne loxo yëpp ci waroon a tàbbendoo wala xalaat yëpp wala doole yëpp ndax amu ci kenn koo xam ne lañuy ñuy lijjanti ci commité d'organisation ba rek na sa gani kër ñoom ñëpp dañuy am ay gan ba noppi nag wëlbatikuwaat ñëw ci gani sëñ tubaay yi ngir régler ko te bu may wax gani sëñ tubaay yi mooy gani ki fi nekkal sëriñ tubaa di xalif général kon day mel ne ñoom gan ñin yor ñun ñëpp ñoo waroon a àndan du leen toppatoo waaye ñoom ñoo ñu fa wutu na leen nañ leen leen ko taxawul loolu nag def na ay jafe-jafe yoo xam ne lépp ci bopp sëriñ bi lay bi ñu bëggoon a bàyyi rek kàddu gi ak sëriñ Mouhamadou Mbacke moom Cheikh Abdoul Wadoud mu ñëw ak ñun nag ci leeral ñu taxawaayu comité bi ak màggal gi ñu dëgmal fan lañ ci toll. salaatu wa salaamu ala man ittafaqa al arabu bi aminihi qabla risalatihi wala si bon isa luy tamima makaarimal axlaaq saydina mawlaana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xayra xadimihi wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi diin asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu sëñ Fallou Galass la ñu ngi lay delloo nuyoo di la sant bu baax ci sa jotaay fii ak man ngir ñu waxtaane loo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun murit yëpp ñoo ko bokk ñun jullit yëpp ñoo ko bokk ñun senegal yëpp ñoo ko bokk te mooy benn bis bu tedd bis bu rëy boo xam ne Cheikhul Khadim moo ko tànnal boppam ci coobaru suñ borom wax ne bis bii de bu dikkee ñaan naa mboolem koo xam ne sama mbég mooy sa mbég nag ma ci santle sama borom sant googu nag mu wutal ko ay ay ay ay ay banqaas bokk na ca bernde waaye bernde ku ne xam na ne bala koo def fokk da ngay dalal nit ki ba nopp bernde door a mën a am euh, màggal gi nag comme bernde moom mooy bokk na ci pëj bi gën a rëy te bernde bala koo def faw nga dalal nit ki ba noppi ci wàllu dalal boobu itam ku ne xam na ne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yàlla na yàlla yokk ay leeram te taas ci barkeem bu daan def déclaration màggal gi daana ci waxaale ne gan ñi nañ génn euh, ñu dëkk ci dëkk bi nañ génn seeni néeg jox ko gan ñi euh, Cheikh Mouhamadoul Mountakha mii fi nekk ci jamonoy sëñ si Muxtaar yàlla na yàlla yokk leeram taar suñ ci barkeem moom itam sëñ Mountakha Mbacké génn fi ñaan wax ne dama bëgg képp koo xam ne yaa ngi ci dëkk bi te am kër goo mën a joxe ngir ci màggal gi ngir jëmmi suñ Tuubaa ñaan naa la ko muy loo xam ne at moom ko njëkkee wax am na ca ay benn benn yoo xam ne dégg nañ ko te nangul ko di ko def ñooñee nag faw du ñàkk ñu ci tudd am na ci koo xam ne mbokk mu baax la woon ñu ko daan wax docteur kan ñaari étage moom këram ca sëñëb laat la ko tàmbalee joxe ngir gani màggal gi ba jamonoy sëñ Sidi Muxtaar caay bi ñaari étage njabootam xamuñoon fu mu nekk man mi maa ko doon yor fii sama kër nga xam ne kon dafa joxoon kër gi kon ëpp na ñeent fukki at lépp mu jox ko sëriñ bi ngir sëñ bi man fay dalal ñen nat ci ay garam ndax ni ko sëñ Fallou Gala si la waxe sànq képp ko fi dugg ci dëkk bi ak kër gu man di dal ganuk sëriñ bi nga ndax moo woote màggal gi waaye nag gan ñi xam nag dañoo directement jëm si ci moom ñooñu moom euh, moo leen war a dalal kon ci biir këram te ñëpp xajuñ ci biir këram mu am ñum jël teg loola ci seen loxo kooku mooy kan ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Amine Bara Mbacké ci la joxe woon ndigal euh, Serigne Bass mu Cheikh Abdoul Khadir mu sos comité d'organisation Magal Touba bi mu ko sosee itam wutal ko ay commission waaye ci biir commission yooyu am na ci ñaari commission yoo xam ne ñooy aajo ñoom lañ dénk nag lépp lu jëm ci dalal gan mooy organisation euh, bi nga xam ne mooy mooy dalal gan ñi jógee Kër Sëñ Touba ñuy nekk Kër Sëñ Touba gii ci gi ci gii ci jumaa ji te Serigne Cheikh Marème monsieur bi Karim monsieur Mbaare jiite leen ak ñiy dalal étranger yi te ji nekk fële ca Ilipor sëñ Cheikhouna Mbacké mu alaaj Bara jiite leen mu des beneen pàcc ji mooy commission communication bi ma bokk man sëñ Cheikh Abdoul euh, sëñ Cheikh Mbacke sëñ Cheikh Abdou Mbacke Abdoul Ahad mu sëñ Cheikh Mbacke Gaïndé Fatma jiite ko ma yor ci nag lu ñuy tuddee accueil hébergement restauration presse ñi nekk ci réew mi ak ñuy jóge ci bitim réew nga xam ne nañ jàpp ne xeetu gan bu nekk dana ñëw ba ci chinois yi dañuy ñëw euh, ñooñu nag seenu dikk ci réew mi ak seenu dikk ci biir Touba léeg-léeg mu amee jafe-jafe ndax ni ko waxee waaye ñi nga xam ne doon joxe seeni kër te yàlla tax tudd naa ci docteur kan waaye dinaa ci tudd it sëñ Abdul Wahab ja moom itam këram dafa tabaxaat sax ca kaw ngir gani sëriñ bi rek yokk ca sax ne bu ngeen fi indee gan bu leen neexee bu leen fi jaaraat la ca war lépp danaa ko def ay ati at mu ngi koy def am na nag yeneen bokki taalibe yoo xam ne ci dëkk bi lañ nekk daan nañ ko def waaye deme na ñoo deme nañ ba bàyyi nañ loola kon ñooñu tuddaat seen i tur ginnaaw dañ ko dañ dañ caa taxaw duñ mën a tuddaat seeni kër tur waaye ñu ngi leen di ñaanal yàlla lañ ca jot def yàlla nañ si suñu borom fay lu kawe sa njort euh, léegi nag jafe-jafe bi ñu ci am te waroon ko cee bañ a am lu tax mooy dëkk bi ñu nekk di Touba euh, Cheikhul Khadim moo fi dikkoon fekk fi ay ndeg ment ak àll bu na tat mu dàq gaynde yaag segg yaag teneen yaag lépp fàkk ko ba mu sell mu rawale fi mu ñëw fi nga rawale fi pas-pasam ak pas-pasu njabootam waaye adduna tax ko woon a jóg jaamu yàlla rek moo taxoon mu bàyyi taax yi bàyyi fépp ñëw ba ci gott bi waaye ku ne xam na ne yàlla bu lay fay it moom dalay fay rek ci àdduna ak tax na ñu dem a dem a dem ba ñu ne dëkk bi ñu leen wax tuubaakat tem fedd géeye woon doonoon ab àll tey day mooy ñaareelu dëkk bi gën a rëy senegal nga xam ne lépp lu nit di soxla ca capitale senegal boo ñëwee fii ci Touba da ko fi am ah sëriñ bi bi mu fàkkee dëkk bi fàkk ko ngir ngir ngir commerce fàkk ko ngir sàkku alal waaye daf ko fàkk rek ngir jàmm yàlla ba lii dikk mu wax na nag man day dëkk bi ma ko defee ngir dëkk jàmm yàlla yaatal naa ci nag mboolem jullit yëpp moo taxoon ca ànd yu njëkk yi jamono si Cheikh Abdoul Ahad mu woote woon ngir nit ñi mën a toxasu Touba ak wax juree jëm ca waxoon bi yàlla dogalee nit ñi di ñëw amu ci benn fifteen boo xam ne Cheikh Abdoul Ahad am na ko ci kër yooyu maanaam li ma bëgg a wax mooy benn genn wàllu mètre wala sebre bu mu ci jaay amut te moo ko natt. moo ko natt def ci li ci war lépp eh, yokk titre foncier bi ba noppi nag ne kaay leen képp ko am am bëgg-bëgg dëkk ak man Touba na nga ñëw bañ ñëwee dañ ko def ay rang ca kam ko tegoon ci loxoom kooka it amu ci lu su ñaar téeméer yam doon laaj pour borno yi nga xam ne ku fi am kër ca jamono booba ñaar téeméer nga ko nga ci nga ci def kër yooyee nag moo dem bay jar ay centaine de millions ñi nga xam ne ñooy jënd ñooy jëndaat pàkk yi ci nit ñi buñ koy tabax duñ fay ca ndox ma ndoxum ki fàkk dëkk bi lañuy lañuy lañuy la tabaxe bu noppee immeuble ba lu mu gudd gudd lu mu yaatu yaatu lu mu rëy rëy rëy kenn du leen ne fay leen ci patant loolu muy baaxul sëriñ bi lépp mu yombalal leen ko te kenn ku ne xam na ne boo nekkoon ci beneen dëkk di fa tabax ndox ma kenn xamul nu muy tollu boo noppee patente bi at bu jot daan la fay lu dul jeex léegi nag loolu lépp sëriñ bi teggil ñu ko ba noppi soxla ñi nga xam ne ñoom la defaloon teraanga jooju ñoom ñu wëlbatikuwaat ñeen ñi ci ñoom bu màggal jotee lu ñu daan luyee ñaar fi ko junni seen appartement daañu ko luyee trois cent mille francs ci loo ne man dama ko mën a waat ñoo xam ne dañ lay wax ne appartement trois cent pour salon un million man toog naa ak nit koo xam ne dafa tabax këram ba mu àgg mu jox ko nit mu di ko joxe ma taxaw mu taxaw mu ne ma appartement yi di mën naa la jox fii ma juróomi appartement bu ci nekk cent vingt cinq mille ba ma d'accord ak moom ma kon nag xam naa dañ maa war a wan kër gi bu ko defee ndax gan ñi fiy dal comme booba RTS laa bëggoon dalal man la comme waa RTS mu ma ah kon kon comité bi la ne ko waaw mu ne déet bu dee comité kay euh, moom moom moom appartement ba ne deux cent cinquante maa ngi taxaw ma bëgg nag ñu dindi kumpa xam ne comité bi ci ndigal lañ nekk mi ngi mel na ñu seen bi jabal xel koom ñu liggéey comité bi amuñu benn bailleur de fonds bu leen di jox benn dërëm comité bi amut benn milliardaire bu leen di financé comité bi léppam ci poste sëriñ bi lay génne te poste sëriñ bi kat lu ci dugg bay génnaat ci taalibe Sëriñ Tuubaa képp la génne la jóge dugg ci poste sëriñ bi mu génnewaat ko di ko terale la génne sëriñ bi kon damay ragal ne xëy na nit ñi mën naa am ñu am kumpa ci comité bi ak doxinam waaye daal comité bi daal dañ xam ne dërëm bu mu génne ginnaaw bu ñu bu ñu waxtaanee ca réunion yi ci kanamu suñu Ousmane mi nga xam mooy coordonnateur bi lépp lu war a génn ci xaalis dana dem wax ko sëñ Basum sëñ Abdou Khadir mooy génne xaalis ba waaye amut feneen fu muy génne xaalis postin bi daal lay génn ci gàttal ma jàpp na kon nag koo xam ne jàpp nga ne ñiy jox sëriñ bi xaalis ba mu koy def ci poosam ca nga war a bokk kon boo amee kër bu ko sëriñ bi soxlaa damaa yaakaar ne boo ko mënta jox tam ngir yàlla nga luye ko ku bokk ci lu jaadu te ci misaal buñ tegee fee mbiru sëriñ ak taalibe waaye ñu indi rek nit ak dëkkandoom ku mel ne Mourtala Bousso tey jii bu amoonub dëkkam defar ko Euh, daal di nekk ku bëgg dëkk na ñëw na ñëw dëkk du leen fayu dara kuy tabax du la fayu booy defar sa sam ndoxit du te fayu ñaat dërëm nga am fa jàmm ju du jeex damay ragal ne kooko bu dul am ndaw kundaa euh, lay na ci xelam toujours di këlëng-këlëng nga ci bopp bi moo war a doon man daal Mourtalla Bousso mii daal teraanga ji ma lebal maa ngi xaar rek moo am bis ba fay ko ko nga xam ne bu Mourtala amee bés rek kooku moom dajay profité bu bëggee benn ci moom mu jox ko junni ginnaaw Mourtala Bousso nag bu amoonu këram euh, ab dëkkam dëkkal fa ay nit lebal leen teraaga ñoom ñëpp duñ nelaw ndax ne bëgg nañ Mourtala am bés bañ fay ko ko waaw asamaana koo xam ne nee nga mooy sëb sëriñ teg ci defal la toll noonu nga di ko fay lii man nag danaa ci wax loo xam ne dama koy soññee sama bopp di ko soññee bokki taalibe yëpp am na ci at moo xam ne de xawoon naa deme nii menn mbokkum taalibe luy ma loo xam ne seer ga ëpp na ma ñëw wax ko sëñ Muntaxa ne ko kat sëñ bi day aajo nañ ndimbal suñ diggante ak waa dëkk bi ndax kat nit ñuy taxé ëpp na ndax xam nañ ne mënuñoo ñàkk kër yi ba tax dañuy taxé loolu lañ la koy luye ba wax ko tudd ko lim ba ma mbokkum taalibe bu waxoon mu xam ne lii lu seer la kàddu yem moo wax nag moom laa bëgg a leeral moo ma ne ah moom day nit ñi day alal tax na fàtte nañ sëriñ bi alal tax na fàtte nañ dëkk bi di Touba lan mooy dëkk bi di Touba ak luy cosaanam alal tax na ñu fàtte ko alal tax na fàtte lan mooy màggal gu mag gi ak luy njariñam ak lu ko tax jóg waaye bu ñu xamoon yii de daañ boole seen bopp ak seen lépp lu ñu am def ko ci màggal gi te xam ne lam lay jural ëllëg adduna ak moo koy ëpp ma xam ne kon jombut eh, li nit ñi di wax rek xel day fattu wala léeg-léeg nit dana juum bëgg a def lee te xëy na xelam du ca àgg mais fàttali sama bopp daal di fàttali ñëpp ne Euh, màggal gi daal bu ñu sañoon ñun ñëpp ñu ànd maase jàppandoo ci te xam ne kët képp ku dëkk cib dëkk gan gu fa ñëw sa gan la ñun ñëpp ku dëkk cib dëkk gan gu fa ñëw sa gan la kon waruñoo def lu dul ñu àndandoo teeru leen te teral leen te xam ne àdduna kët fu ne fu ñuy jaar di jàll képp la waaye andiwul fi pour ñuy profité di dajalee alal rawat na mooy alal ju daganut alal ju léwut bu ma ko waxee mooy loo war a léyee cent mille nga léyee ko quatre cent mille cinq loolu léwut léwut de ku ko man def na xam ne léwut ñun nag ak lu mu seer seer seer seer seer dana dugg nopp sëriñ bi sëriñ bi dana ko def waaye dana xam ne itam nag ñii ne ci biir dëkkam bii ñoo ko def lii ñii ne ci biir dëkkam bii ñoo koy def lii loolu moom dana ko xam du ci mere kenn nag du ci wax kenn dara tamit nag waaye man maay wax ne sëriñ bi daal dana xam loolu moom euh, am na loo xam ne dafa gën ndax kenn ku ne daana gis ne sëñ Saliou daana nett li loo xam ne ne Cheikhul Khadim moo ko doon wax di wax ne màggal gi de ñaar buñ nekkee kii di ci sonn kee sooñu ci sonn ca ku ci sonn diir bu gàtt dana gis la muy rawee ko du sonn muy wax ju wër kon nag sonn ci moo gën ñàkk caa sonn ba ca desaat tam Cheikh Abdoul Ahad daana wax ne màggal gi borom daana wax ne ku ci feeñ dootoo sóolu ba faw waaw waay yaa xëy si kon tee ñoo eh, def màggal ga muy promotion gaaw wut ci lu baax balaa jàll waxuma la nga génn si kër waaye boo amee benn kër ñaari kër ñetti kër ñeenti kër fu nga am fu kër yàlla na ko muurloo waaye eh, def ci lu baax baax na de def ci lu baax baax na de ndax kat Eh, lu baax liñ ciy def moom rek nag moo la mën a jariñ ëllëg waaye tabax ko ba ko fii te xamoo tey la xamoo suba la amul benn jariñ kon daal eh, sëñ Fallou Galas lii daal mooy kàddu yi nga xam ne bëggoon naa rek mu doon lu ñuy laayarante biir maak sama bokk taalibe yi nga xam ne képp ko amoon kumpa ci doxinu comité bi jàpp ne ay milliards lañ denc denc benn milliard waaye nag denc na lu gën milliard ndax taalibe suñ tubaay lañ la sëñ bi denc taalibe suñ tubaay ñooy jëlee seeni seeni seen alal di jox sëñ bi sëñ bi di ko delluwaat ci gane sëriñ bi loolu daal mooy li ci nekk kon sëñ Fallou bu fekkee li ñu soxla woon a xam bu fekkee amul dara lu ci des lu ma waroon a wax rek ñu ñaan yàlla rek kon màggal gi ñëw te fekk ñu si jàmm ni ñu seex suñu borom daan suturaale itam nag. ci daraje ki ñu amut ku moom mu Cheikhul Khadim mu jàppale nu bañ defe ko ba ba mu dikki te gën a woyof addi jàll eh, yàlla man na ko yàlla ñu ko defal ci barke Cheikhul Khadim du ñàkk nag ma yokk ci loo xam ne dama koy soññee Mourtala Bousso te mooy xel koom ju mujj ji bi mu jeexee te xel koom jooju ñu sasoon ko kër sëñ Afe ak kër maam Cheikh Anta ba mu jeexee man. sëñ Moussa Abdoul Akram sëñ Cheikh Anta mu seex Mamadou Rokhaya Daaru Salaam ñoo ànd dem ci sëñ Saliou guddi defe naan Fallou Gallas fa la fekkoon bi ñuy wax ak sëñ dañ ko xamal ne euh, sëriñ bi de dañ lay sant bu baax di la gërëm ndax ndimbal li ñu joxoon te mooy liggéey ba suñ ndimbal la euh, jeex na tey waaye li ko jeexalit mooy taalibe yi taalibe yi ñoo ñëw àndaale seen seen seeni alal ànde seen jëmm liggéey liggéey ba def fere ya kon Mbàkke buñ sañoon nga ñaanal leen bu baax keroog lépp loo xam ne teew na ci suñu xel wala teew na ci xelum kilifa gi doon wax ak moom te mooy diggante ñaari kilifa yi ma wax muy sëñ Cheikh Anta ak sëñ Moussa mu sëñ Abdoul Akram lépp loo xam ne keroog teewoon na ci seen ñaari xel yooyu Euh, loo loo xam ne dana jariñ nit àdduna ak àllaaxira lañ ci mën a wax lépp wax nañ ko sëñ Saliou waaye xam nga bañ waxee ba nopp lu mu waxa ne ko na nga fàggul taalib yi lii tàggul leen lii fàggul leen lii fàggul leen lii lépp luñ bëgg luñ jàpp ne dana amal nit njariñ àdduna ak àllaaxira lañ ci mën a tudd ñu tudd ko sëriñ bi mu fàggul ko taalibe yi ndax njàmbaar guñ def foofa mu daal hmm, waaw moom da ngeen xam ne mbooloom lu ngeen fi wax liggéey bi àttanalu ko ëpp ko wax laa làmmiñam ak sama nopp ginnaaw na xel koom ju sëñ saaliwu santaana ngir jëmmi sëñ Tuubaa moom la moo àttan lu ëpp suñuy suñuy suñuy suñuy bëgg-bëgg àdduna ak àlaaxira waxuma laa nag li li li Cheikhul Khadim joxe woon moom directement ndigal kon nag daal eh, nañ rawante rek fas yéene kenn du ñu ci màggal gi ci suñuy alal ci suñuy jëmm ci suñuy xalaat yu rafet ci suñu bañ yàq ci suñu bañ a yàqal kenn ba tey li mu wax sànq rek ci kër yi nga xam ne comité bi day mujj di obligé di ko loué waaye dama bëggoon a leer rek ne wax ne eh, sëriñ bi moom itam li ko ci war ak li waroon kilifaam yi fi nekkoon te ay waajuram la leen ci war lépp ci barab bu ñuy waajale ay gan tàmbale ko Cheikh Abdoul Ahad kër sëñ Touba gi jumaa ji moo ko fa def ñeneen ñi toppaat ci ginnaawam ñëpp kenn ku nekk boo ñëwee kemtulaay la yàlla dogal nga war ko caa yokk yokk nga ko ca ñu de jàll ba daaru mën naan kër sëñ Tuubaa gi nekk daaru mën gis ngeen la fa nekk ci ay batiment ëpp na ay milliards ndax ñaari batiment yu mag yooyu rek mën na milliards ak li fa yeneen seex yi di defaat yëpp kenn xamul nu toll ay milliards la buñ demee ba fi ma doon wax fi ñuy fi ñuy dara étranger yi fële ca eh, héliport ba moom it ay milliards la fa sëriñ bi def kon sëriñ bi moom jékki-jékki rek. di wax ne nañ ma luyeel waaye ndar xëyut sotti mi ngi tabax te fépp foo xam ne tabax na ko itam day day doon tabax boo xam ne ku fa dugg da gis ne fii de boo doon wër ci hôtel yi gën a rëy ci adduna bi boo fa duggee noonu lay noonu la barab ba di mel noonu lay muritee ci fànn yëpp nga xam ne euh, lépp lu lu lu loo xam ne taraangay bët la boo duggee ci barab yooyee da ko fa gis tabax na ci li man wante nag euh, ba tey gan ñi euh, dañoo desandi ndax organisation bii dina kër Tuubaa gi rek te ay kilifa ba léegi seenu dalin euh, des na nañ war a yaatoo dal yëpp sax seenu dalin des na nam war a yaatoo nga xam ne bu màggal gu jotee euh, ñoom ñëpp dañuy wutiwaat yeneen i kër ngir ngir dollee ko dollee ko barab yi sëñ bi tabax ngir ñu mën faa xaj kon loolu laa ci bëggoon a wax ñu xam ne sëriñ bi li ko war lépp ci taxawaay mu ngi ci mu ngi defar ay kër yu yaatu te rëy te rafet boole koog di ci def entretien ba ci war at mi yëpp lépp lu ñu fa war a réparé waat ci ay millions sëriñ bi day laam ñu def ko co kon sëriñ bu mënoon xëy tey tey tey tey tabaxandoo Sénégal Touba gépp daana ko def waaye kon nag gannaaw ndar mënut a xëy sotti ah lii rek a tax waaye xaaru ci kenn jërëjëf.